madame Guèye Fatoumata Diouf nekk présidente réseau des femmes ànd jàppoo suqali Sénégal bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci HLM ñu samp ko te gis ngeen tey jii mu nekk un peu partout aussi parce que am na ñu ci nekk yëmbal am na ñu ci nekk euh, géejawaay donc réseau la boo xamante ne bu yaatu tey jii ñëpp ànd boole daje waaye it ñi ngi nekk it coordonnatrice nationale bu coalition Macky 2012 nekk fii au niveau des HLM adjointe au maire. waaw tey jii moom dañu daje woon tey jii fii ndax euh, ci fan yële weesu dañu fi defoon euh, formation formation boo xamante ni daf lay dañuy jàngal xarele ci naka la ñuy defaree saabu ak naka la ñuy defee eau de buñ ko defee nag ba pare ñu am nag ay ay ay lijaas yoo xam ne dañ ko waroon tey ji jox euh, jigéen ñi ñi nga xamante def nañu formation boobu lijaase yooyu lañ leen doon jox tey jii lijaase yooyu nag bañ leen ko jox. dafa am loo xamante na jigéen ñi dañ ko ci lonkoon ndaxte dañu ne dañu seetlu saa su ne nit ñi dañuy jàng jàng naka la ñuy euh, defee transformation naka la defee saponification waaye suivi bi dafay des te xam nañ ni kuy wax suivi da ngay wax ci li nga xamante ni moom mooy jàppale mu mooy dimbal kon ci ndimbal boobu nag ñoom ñu sàkk woon teg tay ji leket boo xamante ni dañuy mën a am loo xam ne dinañ ko jëflante ci seen biir waaye bu ñu bëggee liggéey lu jëm ci li nga xamante ne moom la jàng ñu mën ci sàkk pour mën def boobu liggéey ba tax tey jii ci seen këll yooyu ñu teg ñoo jëloon symboliquement 3 millions de francs tàbbal ko ci ñoom ñu fas yéene liggéey am suivi ci formation bi ñuy def pour mën a euh, saytu pour mën a taxaw ci seen ay soxla ñoom ak seen i njaboot donc loolu moo waraloon tey ji ñu daje fi tey jii euh, waxtaan ci loolu jëflante ci loolu waaye leneen li nga xamante nag am na solo lool. te ma fàtte ko wax bi may bi may wax ci tubaab gi mooy tay ji dafa loo xamante ni spontanément ñoom ñëpp dañ ko def dañu jóg ñoom ñëpp ne fas yéene nañu yéene ànd pour dem ci mairie ba ànd nag boobu pour dem ci mairie ba mooy li may wax saa su ne dañ koy boole def ñun ñëpp dañuy àndandoo def ci ndaxte ñoom ñëpp wax nañ ko ki nga xamante ni bu amee ndékki woo la ci bu amee yaakaar nañ ne bu heure añ jotee du leen du lay fàtte te man nit ma am loo xam dama ko faral di leen wax naan leen ànd ak nit ki di ko may saa su ne gënul jàngal ko ni ñuy nappee donc loolu moom moo gën ñun àndoon un cri de cœur te dañu fas yéene jigéen fas yéene jigéen ci mairie ba jiital jigéen du ñu ne nag déedéet dégg nañu seen wax waaye nag na nekk loo xam ne dañu mën a ànd ñu dox ko ensemble pour commune HLM ñu gëm ko liggéey ko ànd dox ko pour commune HLM ndax nee nañu nag ah fi ñu daan waxee naan lu lu góor mën xëj na genn wàllu jigéen a ko koy mën waaye léegi dañ naan lu benn góor mën xaaju jigéen sax moo ko ko dàq te loolu ñun am nañ ci Pastef boo xamante ni dinañ ci dox. dinañ ci ànd ak ñoom liggéey ko ensemble liggéey ko ak benn bokk yaakaar HLM ndax benn bokk yaakaar c'est une réalité ñun ñëpp ñun ñoo ànd ci liggéey bi. wax ni parewuma ndaxte HLM laa juddoo fi màggee fi laa réalité bi fi nekk xam naa ko li nit ñi di dund yëpp xam naa ko waaye nag dañu toll ci jamono joo xamante ne nag góor ñi nag dañoo bàyyi war a bàyyi nag jigéen ñi ñu mos dañoo war a bàyyi jigéen ñi ñu wane la ñu capable def. xam nañ ne jigéen ñi capable nañu waxuma la mairie rek waaye jigéen ñi mën nañoo téye lu raw lu ëpp mairie kon buñ ma ko waxee duma leen ne déedéet dama leen ne nañ leen ànd ensemble ñu liggéey commune bi ndax ci commune bi lañu ñu bokk ci commune bi la ñu dëkk li ñuy vivre ñëpp ñëpp ñoo koy bokk vivre ñun népp xam nañ donc tey jii forme nañ fi 19 euh, femmes euh, ci technique de saponification waaye tamit ci javelisation. donc euh, formé nañ leen ci loolu waaye it tàbbal nañu ci seen i këll 3 millions symboliques yoo xam daf leen di gunge pour mën a am euh, suivi formation boobu mais aussi pour gën a yokk rek li nga xamante moom la ñuy wax autonomisation des femmes pour jigéen ñi war a mën a dem ba war a mën a demal seen bopp di liggéeyal seen bopp euh, di def seen i gafa ba ñu mën leen contabiliser ci li ñuy naan ci PIB bu Sénégal ndax la ñuy liggéey dafa am importance loolu ci dëkk bi donc loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu fas yéene woon def ànd kook ñoom tey jii ci tàkkusaan ba heure bi